continuer di bind. gis nga lu may sant yàlla. Hmm. fii mu ne. Hmm. ba mu ma jaaree loolu ci ngóor. Hmm. billaay dama koy ah dam ñii damay ndax bu ma demoon du ma mel ni ñi loolu lay wax parce que dafa am ñu ma xam des gens avec qui j'ai lutté contre la malgouvernance na des années ils étaient intraitables mais c'est extraordinaire. dañoo jaxase ak ñoom rek soppeeku dama ne sant naa sama borom ba ma jaaree loolu ci nguur parce que mo est-ce que bu ma demoon du ma mel noonu maa ngi sant sama borom bu ah, baax. mais te ñoo ñoo fi nekk di laaj réew mi di. ah ku ciy rëcc. déedéet ah. déedéet yaa fi wax nii alternance fi la la fekk. waaw doon wax nii ah kii mooy jaabul bi. waaw daañu ko fal. waaw tey dafa mel ni contexte boobu la ñuy dund. déedéet tout sauf Macky. ki ma tout sauf li li ko jege. tout tout déet. tout sauf Macky tout sauf li ko jege. tout ñu ko jege man ku jub laa bëgg de. ah waaw ku jub laa bëgg de te te comme te confrère on l'habitude waa doyen da ngay kii Ousmane Sonko mais c'est c'est pas un délit man de li ma jot a xam ci moom parce que depuis qu'il a été régé de façon absolument illégale décret illégal manifestement illégal par rapport à certaines kii ay. c'est c'est bon je ne li ma li ma xam. keroog bañ ko rajee il a fait une conférence à au centre Amadou Gaye de Bopp moi j'ai dama ne daal ce garçon la danaa ko déglu ci bi ma dégloo mu wax par rapport a sa maison par rapport li mu am par rapport à son compte la fa nekk bañ ko rajee ku ma xamal leneen na wax dama ne ce garçon raconte des histoires yàlla xam ne loolu la wax parce que moi quand je connais voilà je connais comment vivre certains inspecteurs et puis ku am cent millions de fonds communs tous les trois mois c'est extraordinaire ce qu'il y a des dans ce pays bref donc ma ni mais ce garçon là il raconte des histoires li yàlla dara tuut de dix jours après il me fait appeler par un de ses je crois que c'est c'est basiru Bassirou Diomaye Faye ou l'autre ne doyen maa ngi jégalu ci sa numéro bi ma kii sa benn xarit ma ko jox Ousmane daal neen da bëgg da dégg da bëgg a seet ma ni ko ça très bien ils sont venus me voir chez moi à la un mardi. vingt et une bi ma ko dalalee ba pare mbaataam yi demul. ñu dem bi nga ko dalalee. bi ma ko dalalee. Hmm. li <laughs> ma ko njëkk a wax dama ne ko yow sa conférence nga woon mu ne ma ne ko la la nga waxoon nga répété ko mu ne ma lan ma ne ko mu wax ba pare ne ma bu la neexee gëm bu la neexee bañ a gëm du ma léwul du ma ko dugal sama biir du ma ko dugal sama biiru doom yëmuma foofa ma je suis un vieil enseignant j'ai des d'anciens élèves partout j'en ai de deux qui le connaissent ñaar séparément ma wax leen li mu wax mais témoignage ba ma jox daal man doy na ma il est compétent il est machin il fait son travail bëggalul kenn dara yëmul foofa dama ko topp des gens qui ont essayé de le corrompre témoigné nañ fii ñëpp dégg dégg et puis c'est quelqu'un boo waxee ñu ni noo il est encore jeune Mamadou Dia avait cinquante ans en 1960 cinquante ans Valdiodio en avait moins. Babacar Ba en avait moins. Lui, il, a, il aura 50 ans. Et puis, c'est pas n'importe qui. Il a fait de solides études à Gaston Berger. Ouais. Voilà, École nationale d'administration, inspecteur des impôts pendant 15 ans. Il a une expérience de l'administration, ce qui disent qui. ñu naan réalité du. Non, non. réalité. réalité. il n'a pas été ci yenn station yi. loolu la ko ñenn ñi bàkkee yenn station. boo waxee ñu ne la boo tegee profilu Amadou Ba nga teg profilu Ousmane Sonko. voilà Amadou day romb. ndax au delà impôt et domaine. très bien jaar na ci yenn ministères yi. très ci xolu yenn ministères yi xam. waaw xam nga. waaw te Ousmane deful yooyu. waaw d'accord xam nga sa confrère yi dañu naan euh, waaw cursus bi. oui ministre de Nangam. waaye gisuma ci kenn ku wax les huit ou neuf années qu'il a qu'il a passé à la tête de la direction générale des impôts de domaines. Amadou Ba waaw. lu tax nga jàpp ni. Oh, oh j'ai beaucoup la gestion foncière des libéraux sama livre ma le clan des hmm. am na ci benn chapitre bu ma tuddee une boulimie foncière à nul autre pareil. Hmm. 90 pages. Abdoulaye Wade li mu def ak ñii. gestion foncière. Hmm. rek yóbbu na leen kaso. te les gens ne s'attardent pas sur le passage de Amadou Ba à la direction générale des impôts. lu tax nga bëgg cee taxaw. Euh, benn rek la wax. waaw les terres de Bambilor. qui qui était un titre foncier appartenant à un général français. mort ses enfants sont venus au Sénégal un grand titre foncier. y avait des villages y avait des champs y avait des dañ koy jaay ma le l'un des xaw ma fu mu jëlee sama tur il ma ab woo na ma ma fekk ko booba mi ngi nekk ci genn kër Mermoz hmm. m'a dit notre père nangam nangam on va vendre notre terrain on a on vous a bëgg ma ni leen laa nag ce n'est pas de parce que je ne suis pas un spécialiste de la question bi ñu ne dañ koy jaay c'est la vérité Abdoulaye Wade a donné pour que le titre foncier ne soit pas vendu à parce que bu ñu ko jaayee mmh. privé les gens qui sont là-bas ils des problèmes ñabat du yori dëkk ak yooyu ce qui était très loin l'État l'achète le titre foncier la mu waxoon xam nga ñañ ci njëkk a ña a jox. cent soixante quinze hectares lañ ko jox à mille francs le mètre carré. mille francs le mètre carré. cent soixante quinze hectare cent soixante quinze hectares mu jël ca cent hectares jaay ko caisse des dépôts et consignation six mille francs le mètre carré muy six milliards te moom mille francs xam nga un mille un milliard soixante quinze millions la war a fay. Hmm. boobu fayul dara ba muy jaay. le bail n'était pas encore à son ba mu leen koy ay marché yooyu août la soog a dem fay caisse de dépôt de consignation cent hectares à six milliards te la même période la caisse de dépôt et de consignation ayant un programme de logements sociaux a écrit à la direction générale des impôts et domaines ne leen ndax amuñu fa un terrain disponible dans les parages la DGID ma nga fa répond non waaw kooka. Hmm. da ngaa defe ne eh, dañoo xëy rek eh, rendre ko milliardaire noonu. Ah, eh, ak ñe ak ñeneen sax ak ñeneen ñii cent hectares ñii nangam ñii nag voilà ensuite le grand graw xam nga avec les transactions là dafa am ay taxes yu ñu war a fay. malgré loolu ñu ko defal lépp demul dem fay sax la inspection générale d'État ne na bu ñu seetee la ñu waroon a fay ñoo ñu lee bénéficiaires. Hmm. ëpp na trent cinq milliards yi ñu waroon fay ci taxe yooyu ci loolu rek l' état a perdu trente cinq milliards zone de captage gii noonu lañ ko séddalee la la réserve foncière qui derrière la foire. les parties sociale léegi lu waral wax njaaxum gii ak tudd ci Amadou Ba. mais am nekkoon directeur général des impôts et domaines. loola di fa xaw xamu ci dara. Hmm. boo gisee euh, rapport bi def ci le le financement du monument de la renaissance africaine foofu it la fa Wade def mar d'Italie 37 hectares on donne ça en particulier 4400 francs le mètre carré léegi am na fay terrain yoo xam ne 100 millions lañ koy jaay hmm. rapport ba ñu fa def bu ñu la fa def bu ñu la wonee les violations de la loi yow dañuy tegaloo au moins quinze violations de la loi du début jusqu'à la fin c'est des violations de la loi il était le directeur général de machin des impôts et domaines alors moo tax boo waxee ñu ni. Hmm. moo naan passe euh, le comme tu dis. fa mu jaar fa mu jaar. Hmm. Macky Sall ku ko gën fu mu jaar. ah am na jaar jaar de. ah am na jaar jaar de. fu mu yóbbu. fan nga jàpp fa la ñu yóbbu. laa xawla la xawla. moo tax nga ne yow ku jub ngay wër. yàlla bu nu nit yóbbu fa mu nu yóbbu. moo tax nga ni ku jub ngay wër. man jub ngay wër te dafa mel ni boo koy wax rek ci kenn nga ko gis. ci ñuy ah, wax ah, ci jamono ji alternative déedéet dama ne bu doon candidat. Ah. moom lay woteel. mais am na ci ñoo xam ne ñi il ferait de très bon président de xam nga leen. Boubacar Camara jusqu'à preuve du contraire am na xam-xam xam na état déggaluma ko dara xam jusqu'à preuve du contraire le docteur Abdourahmane Diouf ah. extrêmement compétent xamaluma ko dara lu dul jóg Thierno Alassane Sall ak ñoom am na ci ñu bare bari ñoo xam ni ñi c'est des gens jusqu'à preuve du contraire jàpp naa ne ñu mën ak mën a jiite ndax mën ngaa wax kon da nga bëgg a wax Ousmane Sonko ne ko soo mënta dem xoolal ci ñii. ah déedéet. ah am na ñu àndal ñu dul ñooñu. ñoo xam ak ñu xamul. waaye ci yow laa wax bu doon ni da tëgg ab scénario pour wër ko jub. waaw da nga naan Ousmane bu mu yem rek ci njabootam bu mu yem rek ci nga xam ne yor nañ sax yem ci day désigné désigné candidat. waaw ah déedéet. yow nga ànd ak ni 2014 ba nag ni am tey compétent yu gi nga leen fa ci di loolu kay moom duma ko ko digal. Ah. wala boog koo xam ni kii ku ko jege lay waxal même boo amee mouvement daanaka seeni ci ci ci ci Pastef ah. même mën naa ku mel noonu mën naa ne waaye dem rek jëli de ah. waa Pastef sax duñ ko nangu ndax xam nga ci biir Pastef keneen ku dul Bassirou Diomaye keneen ku dul am na ñu bari ah. bari am na mais comme il travaille machin je ne pas la am na bari na ci dinañ lay consulter léegoo léeg non non si seen tëgginu programme ci wàllu gouvernement sax déedéet déedéet déedéet duñ ma consulter de Hmm. fi nga ci toll nii lan la sa liggéey au delà de di répondre suñu invitation apprécier li nga xam te mooy actualité bi ma liggéey ji waaw maanaam sa taxawaay hmm. ci au delà de ni ngay euh, nangoo suñuy invitation hmm. ndax yaa ngi beru di liggéey di xalaat waaw nooy def am na sax am na structure bu ma bokk boo ah. xam ne bi objectif bi mooy loolu mooy jóg ngir Sénégal bu ma bokk ak ñoom Baba Amadou Baba Wan le colonel Tabaski Diouf excellent ak lettre ba waaw excellent colonel kooku ñi waroon na njëkk kenn waru ko woon njëkk général excellent qui ferait un excellent ministre de l'intérieur maa ngi wax nag sama waxi bopp rek <laughs> euh, Sadio Camara oui ex excellent commissaire des des gens comme ça nun noo ngi ensemble di conscientiser sénégalais yi di leen wan ki war a nekk président lan la war a doon ak président lan war lan la warut a def on va essayer au maximum de conscientiser les pour que ils ne sa trompent pas encore pour la troisième fois. Ah cette fois dans leur choix. foofa maa nga foofa je travaille sur ça. noo def ba convaincre sa njaboot gi ñu bàyyi la nga ñëwaat. waaw xam nañ ne. <laughs> surtout ci contexte bi ñu nekk nii. xam na mun. maanaam munoo toog daal di déglu yéen. voilà voilà c'est neexul. Hmm. bu ñu sañoon ma avec l'âge avec euh, l'état de les comprends mais nit ku nekk ni la yàlla bindee Mamadou Dia. Hmm. après biñ ko génnee kii. Hmm. xam nga. dafa kiiwaat ces parents là dañoo kiis non non non a répondu le militantisme n'a pas d'âge am na ci sa confrère yu sax ku ne ma waaw mag mu doon léegi au lieu que muy kii dafa war a mag <laughs> waaw mag dama war a au contraire mag damay xalaat sama xale yi hmm. te xale yi xale yi dañ def attention de hmm. ah on est en de les divertir très gravement bu leen kenn na xale yi seen avenir nekkul ci ñii 2024 bu fi ñi jógewul lu ngeen dund da ngeen dund lu ko raw léegi ñu ngi leen di nax xam nga le président a reçu reçu les les les lutteurs là. waaye après Amadou Ba je on leur a donné 500 cent 500 millions. dimanche bu nañu organiser léegi alors que bu njëkk. lamb yooyu ñuy fay cinquante soixante millions mais tous les trois quatre cinq six mois léegi dimanche yëpp dañuy organiser c' est une manière de retenir la attention des jeunes xale yi bu leen ko nangu de lamb baax na football baax na waaye votre avenir n' est pas dans la lutte votre avenir n' est pas dans le football mënu leen koo ñàkk a def nag. Hmm. waaye nañu seet ñi làmb di dundal ak ñi football di dundal. képp képp du dara nañu seet. nañu jëli seen carte la moment venu léegi ñu ubbi ko te bu bis baa bu leen kenn njëkk ca bureau de ya te Amadou Ba mii ne bu ñu ko wotee continuité la mooy ñëwoon fa woon la woon. Hmm. la Wade daan def lay def. la Macky Sall di doon def lay def kii de ku ko wotee la yam te liñ koy waxal am na nag sa confrère yu ko jéem a justifié. mooy naan milliards yi fonds communs la mais xanaa bon. inspecteur des impôts yëpp ay milliardaire lañ ah Cheikh Bamba Dièye am na lu mu wax. Hmm. nee na au Sénégal nous comptons trois mille trois cent fonctionnaires milliardaires ma ne xanaa bon de ci ñooñu la parce que maa ngi déglu sa sa waxtaan sa yenn gars yi. Hmm. ñuy justifier milliards yi quoi. ñu ne waaw tous les